Heavy Mess.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 pëtël xale bu jigéen bi nee ñu ati mu ngi toll ci fukki at ak ñett baykat bi ñu ne moo ko violé moom it ati mu ngi toll ci ñaar fukk ak ñaar ñoom ñëpp dëkk ca village bu ñu naan caali nekk ca département bu Kanel waajuru xale bu jigéen bi dañoo toog toog gisuñu seen doom naka noonu si lañu ko tàmbalee wër di wër xale bi di ko wër ba ñu signalé seen doom mu ngi ci xale bu góor te xale bu góor boobu du kenn lu dul seen ab dëkkandoo boo xam ne moo jël seen doom dal di koy làq ci benn kër lu toll ci ñaari fan bi loolu amee na ci la way juru xale bu jigéen bi dal di porte plainte ca brigade territoriale bu Kanel naka noonu ci la ñu dem dal di ñuqi xale bi dal di koy fokkati ci loxoy baykat bi bi ñu jëlee xale bi mane ne yamuñu foofu de ndax dañoo jël xale bi dem yóbbu ko ñu caytu ko bi ñu caytoo xale bi gis ne xale bi moom ba mu yàqoo yàgg na dara nekkatu fa ci kanamu enquêteurs yi tamit baykat bi daw ci salander ndax li mu wax mooy moo xale bu jigéen bi dañ doon génn te kat ba gel googu mbëggeel gu yàgg la ñu ko doon dund mësu ko violé lépp lu ci am consentement la ay xale yi xale yi dañuy teel a bu référence nangu na tamit ne moo ko làqoon lu toll ci ñaari fan waaye nag viol biñ wax dara amu ci ma ne nag léegi Sénégal xale dañuy teel a dugg ci mbirum mbëggeel te bu ñu ci mbirum mbëggeel daanaka du ñu yem fi ñu war a yem teel a burle farouge yi la ñuy def seen wayjur yi dañ koy xam di seetaan ba xale bi xëy ëpp leen loxo dara xew ci ñu jóg ne viol fekk la amoon yëpp ñoo ko seetaan moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw korona la wax la xewit ca Cambérène romb na doy waar ab jaaykatu bitik tamit moo fa doon lambaatu xale bu jigéen bu am 9 ans ba ñu mujj koo teg loxo way way way téye leen seen doom yi jaaykatu bitik boobu na ab ressortissant la bu dëkk ci suñu dendi réew mi moom daal ndekete saa bu ñu mësaan a yónni xale bi ci bitigam bi mbiskit la koy naxee bu ko defee bu xale bi ñëwee mu jàllale ko ci suufu comptoir bi summi ko di ko làmbatu <laughs> ci piri yaayu xale bu jigéen bi nag moo constaté ci doomam ne dafa am changement bu rëy ci yaram bi naka noonu tamit mu seetlu ne saa bu ko yónneetee ci borom bitig bi xale bi day lank ba tëdd ci naaj bi boole ko ànd ak tiitaange boo xam ni maara dee taali waaw di seetlu xale yi baax na de bi loolu amee nag ci la yaa ji gis benn bàjjanu gox ñu saisir chef de service bu commissariat bu unité 15 nekk foofu noonu ca Parcelles Assainies ci la ñu yóbboo xale bi ci ab gynécologue mu xool ko gis ne xale bi mu ngi doon sibir ay attouchement yu metti xale bi tamit bi ñu ko interrogé la ne borom bitig bi a chaque fois bu ñu ko yoon yónni ci moom mbiskit la koy naxee dal di koy woo dugal ko ci suufu comptoir bi summi ko ay waay téye leen xale yi borom bitig bi tamit bu ñu ko tegee loxo interrogé ko nangu na lépp li xale bi wax waaye nee na mësul yegg ci kawam ci piri te sax nee na bi mu yegee yëf yi ne mu ngi jóg doon na bëgg a ak waajur yi dem ngir baalu leen ak waaye kii ku mu yem te sax nee na bi ñu koy teg loxo dañu ko fekk mu doon ramasser ay bagaasam ngir bëgg a daw génn réew mi <laughs> ma ne leen daal way jur yi dee leen seetlu seeni doom waaye bàyyi sa doom muy fréquenté am ponkal nga naan demal mu koy may xaalis ak bu ñëwee nga naan sa tontoo diwa ko may ak ak a baax dee leen seetlu xale yi mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje beneen yoon ci yeneen xibaaru buzz